chers leaders maa ngi leen di nuyu di leen nuyu yéen ñi fi tase waa presse bi di nuyu waa Sénégal di leen balu àq ci julli gi ñu jóge di nuyu sunu kilifa diine yi di leen euh, déwénal di ñaan yàlla yal na leen yàlla bàyyi sunu kanam te may leen wér ñu ngi nuyu le peuple sénégalais di leen ndokkeel nag peuple sénégalais lañuy ñuy ndokkeel ndax peuple sénégalais dafa yegg ci dañ réer dafa yegg ci xam li mu bëgg te xam ni mu koy amee dafa dañ ci aksepte lu mu war a nangu bañ lu mu war a bañ di wax président ni ko loo def mu rafet de soo ko deful woon day ñaaw loo def mu rafet boo ko deful woon day ñaaw kon lii nga def rafet na loolu mooy soo ko deful woon day ñaaw waaye ñun dafa am ñoo xam ni dañoo jëloon lii mujj rekk muy seen itte ñun suñu itte la woon comme ni mu nekk itte wu Sénégal yépp ngir rafetal deru senegaal kon ku ko rafetal ñu jël def nekkoon na suñu itte ngir jàmm am ndax boobu dong lañu d'accord ni suñ ko deful woon jàmm du am kilifa diine yi nangu kook ñun dégluñu ci itam peuple bi ànd ceeg ñun doxal ko itam waaye nag ñun yamuñu woon ci loolu 2012 ba nëgë ne dafa am luñ doon xeex 2012 ba léegi dafa am luñ la doon dénku ba bi mujj gi dénku bi gën a sori moo di dañ ñu woon président ba nga toogee ba léegi justice bi yemale woo ko te dafa war a yem kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi war a jóge dañu ni duma doom làq doom dañ ko war a bàyyi ma di tudde woon ko cette gestion manichéenne bi nga xam ni maa ngi commencé di ko dénoncer depuis 2012 te xam lu tax tey nag da nga tudd violence lu bëri ci sa discours waaye président violence boobu fi nga ko foogee du fi fi nga ko foogee du fi libérer les forces de l'ordre yi enquête ñu wax la ñan ñooy def li ñan ñooy def violence sama ñaari oto te émeute amul dara amul la ñu yeble ñu ñëw sama buntu kër taal ko ñu ngi koy enquête te xam naa ni instruction bi du dem fenn tant que woo ci sa kudd boobu billaay du dem fenn kon nag levé ko professeur daat bii matul trois jours la ñu fekk buntu këram otoom lakk ko à trois heures du matin ñiy wër di lakk oto opposition bi xanaa ñooñu defuñu violence te jotewuñoo ak ñoom dara kon booy enquête enquêtal parce que nag da ngay enquête ñuy enquête dangay ngay suñuy ñuy gëstu dinañ la jox ay éléments de preuve waaye ñu ne dinañ wut ay élément de preuve moo tax du ñu noppi dinañ la wax ne la bu fi wax ji yem continuer di enquête situer les responsabilités d'accord nañ ci waaye bu justice bi jéng parce que justice bi bu jengee rek ba am troisième mandat bii nga bañ mu lakk dëkk bi ba tax nga surseoir ko ba nit ñi mën la gërëm ci loolu troisième mandat bi am na lu ko gën a garaaw mooy justice bu juste musiba naaru laay la te justice baa ngi ñuy bëgg a indil problème ndax président danga nga tudd ay ñi la précédé mbooloom président bu la précédé ca lañ ñu nettali ba ci li ñu fekkee ku ci nekk am na cas de bu ñu la tegal waaye sa grandeur nga nekk un grand monsieur nekk président de la république de tout le Sénégal nga jukkal suñu borom mooy tax ba ku ci indi complot parce que de tout le temps day am des esprits tordus yoo xam ne dañuy wut lu neex la chef ñuy def ay complot kon lii ñu teg Ousmane Sonko am na ñu ko doon def du temps de Senghor Senghor dàq ko parce que c'est un grand monsieur am na ñu ko doon def di temps de Abdou Diouf kooku moom dégg naa ko xam naa turi mu dàq ko ne loolu du fi amee am na ñu ko doon def du temps de Abdoulaye Wade dàq ko kooku it xam nañ lan la kon tey bu demee ba ci yow ñuy def ay complot di ko teg ci sa nawle gor président dàq ko te teg lépp ci suuf leneen li ci des mooy dañu waxante woon ak yow processus électoral ca dialogue yu jëkk ya ñun bañu ñu ñi fi ne ñëpp dañuy jaloog mais xamoon nañ ni sa dialogue bii du jur dara te yow wan nga ñu ne du jur dara te président bu dee am na sa waxi euh, euh, renoncé ci mandat bi luñ la ciy gërëme mooy li nga war a def rek nga def mooy leeral ñu ci ñi àndal ñi nga àndal ñooy ñan mooy ñi nga àndal dem ci dialogue bi tegoo leen fenn ndax ñoom ñoo la ni woon demal cour constitutionnel ñoom duñu wax ci troisième mandat bi dégluwoo leen synthèse bi kenn retenirul affaire troisième mandat bi nga ñëw wax sa wax mu yëkkati la wàcce leen ñeneen ñi nga àndal ñuy ay élèves ñeneen ñuy nekk di tëkku nit ñi di leen menacer di wut ku nu rey nga won leen ni kenn reyul kenn te damay bàyyi loolu baax na loolu mooy enseignement bi ñu tiire ci yow wan nga ñu ñi nga àndal ñooy ñan enseignement yooyu nag dinañ ko jël jàppe leen ko ndaxte nag histoire dafa war a joxe ay leçons leçons yi gaa dinay cher dinay metti mais histoire dafa war a joxe ay leçons kon président ci revendication yi ñun li ñu ci gën a amal importance mooy participation de tous les candidats élection inclusive bi buñ ko waxee nag dañuy yëkkati kenn koo xam ni dañ koy sant di ko santati bu ñu santee peuple bi parce que ba nga éliminer vingt-deux personnes 22 candida utiliser sa parrainage te bañoon nañ parrainage bi ba ñuy bañ parrainage bi amuñu kenn ku ñu xeexal nga xëy suba teel jàpp leader yëpp kenn taxawul xeex kon ba nga xamee ni jàpp nañ leader yi taxawuñu xeex ci parrainage bi bi février 2021 amee am ñu jàkkaarloog yow di peuple bi am koo xam ne dafa àddu peuple bi jóg dama ne dañu daal di ne alhamdulilahi rabbil alamina lañ ñu imposé woon ci parrainage bi buntu assemblée ñu tëj ko kenn génnul kenn duggul ndekete am na benn force boo xam ne mën na jàkkaarloo kii ñu rejeté parrainage yu ay candidat ñooñu dese seen mer di ko ruminer ñu fa bi deux mille vingt et jotee ñu ni am na force bu koy dindi kon président su fekkee ne da nga ne sa kersa moo la may nga renoncer ci lii ñu wax la ni la loo rus ak loo ragal ñooyam wasalaam merci